وجهت وجهي لمن تغيم asalaamualeykum wa rahmatullahi ci atum 1979 la amoon ca Paris ñeent fukki at ci ren ñu fas yéene ko yeesal ci ndigalu cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides loolu moo di lan semaine Cheikh Ahmadou Bamba di ayu bis bi ñu jagleel Serigne Touba Khadim Rasoul ca Paris France diggante fukki fan ak juróom benn jàpp ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre ci atum 2019 bis yooyu ñi koy taxawal ñooy jamaatu taawuni ala taatillahi wa rasulihi ànd ko ak comité d'organisation bu màggalu Touba ak institut Abdullahi wa Khadim Rasulihi sukkandiku ci njàngaleem sëriñ Touba Xaadim Rasuul ba doomu aadama mën a defaru ci laabal ak sellal xol yi ngir dog yoonu njub loolu la ay boroomi xam-xam ak i gëstukat fas yéene waxtaane diirub ayu bés boobu sant nañu yàlla bi ndaje mi ñëwee ci waxtoom ngir tolluwaayu jamono ji ci réer ak ñàkk xam diine dolli ci gàttañlu ci jëflante yu rafet liggéey bi nag dafa tàbbi ci waajtaayu màggaluk Tuuba ni ko Serigne Bassirou Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir waxee. waa jamiyatu taawun ala taatillahi wa rasulihi ba nekk France ñoom itam ñu ñëwoon ci Cheikh mu Mountakha. jar waajale ko màgg bi ñoom ñu am yitte ju rëy ju kawe ngir fas yéenee delloo Serigne Touba njëkkal defal Cheikh Ahmadou Bamba semaine culturelle nañ ko defoon jamono yu yitte ju kawee jooju ñeent fukki at ci ren moom la ñu fas yéene feddali ca Paris incha allah ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te weer diggante fukki fan ak juróom-benn jàpp ñaar fukki fan ñaar ci weeru septembre ci atum 2019 semaine Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ca France ne ko ñëpp waajal.